alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf almursalin muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin ginnaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala noo ngi koy bàkk noo ngi koy kañ ci mboolem xeeti tur yu sell ak melokaan yu kawe yi nga xam ni sunu borom subhanahu wa taala moo ko jagoo ñu ngi julli di salmal ci muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ñaan jàmm yàlla ak xéewalam ak muccam yàlla na yàlla dëkkee def ko mu dottee ko ci kaw saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan sunu borom mu boole ñu defal tawfiq ila yawm alqiyama dañu ñu di daje ci daje yu am solo yooye nga xam ni insha allah mooy wax ci bokkaale yàlla ak ya nga xamante ni loolu lislaam di bañ te pas di ko bañ woote bu mag woo wala xàll wu rëy woowu wax naa fi lu dul benn du ñaar mooy gaal ak yàlla noox ca jamonoy tuufaan laa sakka di pas-pas ku ko setle te wérle ko kooku insha allahu dana mucc bu yowmal qiyaame ak lu mu am am ci ay bàkkaar bu soobee sunu borom mën na koo jéggal waaye képp koo xam ne setlewul pas-pas la des ci ay xolam ci ay mbir yu war a cëralee yàlla mu cëral ko doomu aadama kooku day amaana lu mu indi ci aw tiyaaba lu mu baax baax kooku pertaangi dikkal na ko comme ni ko alquran xutba jële weesu ñoo ngi tàmbale woon di waxtaan ci bokkaale yàlla subhaanahu wa taala ak musiba yu rëy yi nga xam ni bokkaale am na mbokk yi bokkaale mooy tooñ gi gën a rëy gu doomu aadama yi def ci kaw suuf digganteem ak boroom borom xutbay tey ji moo ngi jëm ci xaaj goo xam ni boroom xam-xam yi dañ koy xaaj bokkaale yàlla di gu ndaw ak gu mag te man sax damay wax ni ñaari yëpp yu mag laa leen di tuddee ndax kan jëm ci moom mooy ku màgg muy yàlla subhaanahu wa moo tax lépp lu ko tax dafay nekk lu màgg borom xam i lislaam yi nag ci làkkub lislaam dañuy xaaj bokkaale yàlla ci ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy ashirkul asgar muy bokkaale gu ndaw am na am misaal xaajab ñaaral mooy bokkaale gu mag ginnaaw bu ñu leeralee nii yépp dañ leen di dugal ci buntu bokkaale bu mag ndax kim jëm ci moom mooy borom bi subhaanahu wa taala te kooku ku màgg la borom bi day subhaanahu wa bokkaale ci boppam daf koo bañ def koo sib waaye rawatina bokkaale bii nga xam ni kon ñenn ci borom xam-xam yi moom lañuy ñu tuddee bokkaale bu mag bokkaale bu bokk na ci yi koy wund wala yi koy wane mooy nit ki jël ab yàlla wala jël nit jox ko lenn ci téere yàlla subhaanahu wa taala moo xam daf koo wax moo xam daf koo fas ci xolam moo xam da koy jëfe nit ñi ne foofu la ñuy wuute am na ñoo xam ni lanu fas ñoom ña koy wax ña ngi koy dund am na koo xam ne daf koo gëm rek waaye génnewu ko waaye am na koo xamante ni moom ci sikk sàkk la nekk ñooñee ñëpp lu ki mel ni ñi nga xam ni ñoom dañuy jël Isa di ko def doomu yàlla subhaanahu wa taala jaalullaha thalitha salaata mooy ñetteelu ñett ñi mooy kan Mariam doomam Isa ak sunu borom muy ñetti ñetti yàlla yi nga xam ni léeg-léeg dangay gis dañuy jël ab bant rëdd ko def fa tolloog mbagg ya ab galañ ah yàlla baay ji ak doom ji xel mu sell ma comme ni ñu koy waxee taala allahu an dalika uluwan kabira wallahi lii xamadi la ak ñàkk yar ñàkk yar mooy loolu ndax doomu aadama bu xamoon borom bi subhanahu wa taala li mu bëgg ci moom ak li mu bëgg ci mu texe li bëgg ci moom ci yiw li koy dawal ci ay musiba damay wax di kàddu yooyu ëpp naa génne ci gémmiñ kaburat kalimatan taxruju min afwahihim in yaquluna illa kadiba kàddu bu rëy goo xam ne ay kàcc la buy génne ci gémmiñ mooy googu beneen bi ñi nga xam ni ñoom euh, ñoom la wax almajuus mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu safara ñoom dañuy wax ni dëgg la sax Euh, séddale gi sax moom amaan na ci yàlla lay jëm waaye nag lépp loo xamante ni mooy lu baax ak luy jariñ mi ngi bàyyi koo ci leer bàyyi koo ci yàlla waaye mi ngi bàyyikoo ci leer ndax leer am solo waaye lépp loo xamante ni mooy lu lëndëm ak lu tilim bon ah, ngi bàyyi ci lu bon lu bon a ko sàkk googa séddale tamit séddale bokkaale la wala ñi nga xam ne ñoom dañuy jël ay àtte di ko jox biddéew yi te defe naa fii suñu réew sax am na fi dangay ngay dégg ay nit yoo xam dañ naan biddiw sàngam de saa bu fàqee jamono jooju ku ci du nangam ngay doon biddiw sàngam kat moo yore nangam biddiw sàngam moo yore nangam bal am ci ñoo xam dañoo dem ba dañoo jàpp ni biddiw yi gën a kawe am na ci yoo xam ne ni addina bi doxee ñoo ko yore ñoo yore taw bi ñoo yore wërsëg bi ñoo yore nangam ba léegi hatta al ay nit ñu ngi koy gëm wallahi ni koy gëmee nag mooy wuute ndax léeg-léeg yan lay day fekk nit ñi soppi nañ tur bi soppi nañ doxalin wi di gën a moderniser mbir yi waaye daanaka lépp rek benn la bokk na ci musiba yooyu mooy li ma leen junjoon ci xutba jeebaate ñi nga xam ni ñoom dañuy wékk seen yi ci ay bàmmeel jàpp ni bàmmeel yi am na njariñ lu mu mën wala am na ci ay nit ñoo xam ni dañoo jàpp ni ruuxu gaa yu baax yu sell yi faatu am nañ aw doxalin wun man ci kaw suuf dañuy doxal ci kaw suuf ba léegi tafaatum loolu yaakaar naa fii ma taxaw di ko wax waxuma lu bees waxuma it luy jommalaatu waxuma loo xam ne daa jar coono bu rëy pour mën koo dégg déedéet am na ay nit yoo xam ni fi mu ne nii gëm nañ ni sëriñ diw ma faatu woon atam sàngam faatuwut boo nee faatuwut kon nun def ñu ne daa làqu waa bisimilah d'accord na dafa làqu waa léegi bu làqu après ñu ne mën nay dellu siwaat kaw suuf di def di jëriñ ak lor dañuy faj sax aajo nag da ngay gis xam ni subhaanal malikil aala day am aajo aajo ju ñor yoo xam ne ji yàlla lañ ko war ñaan mu talal ay loxo bal sax nit ñi da ngay dégg publiquement ci rajo yi ku yaakaar sëriñ diw tudd aw tur subhaanallah naka la ñuy yaakaar di fi bàyyi yàlla subhaanahu wa taala kooku yàlla yaakaar leneen loo wéeru lu dut loo dana daanu daaneen waaye yàlla subhanahu wa taala ni'mal mawla wa ni'mal nasir kuy wéeru ci moom ngay wéeru ay nit jàpp nañ ne fi mu ne am na ñoo xam ni ba léegi ñu ngi faj ay aajo jamono yi passé damaa dugg oto ma déglu benn kaset benn waaye di li nit li ak ay mbir yoo xam ni subhanallah da ngay wax ni gis nga nit ñi ndekk seen xel yi yeggagut fenn da nga defee ne ñu muus lañ waaye muusul mu ni benn benn kilifa mu tudd aw tur mu ni benn jigéen dafa tëdd ba guddi ab sàcc daal di koy dikkal sàcc bi daal dugg ci néeg bi fekk ñi ngi ko dénkoon ab nat dénkaale ko ay or ak i nangam yu kenn xamut fekk photo diw ma nga fa tege xool mu yi ñuy am sax photo mu ni ma xam ni su ma yuuxuwut musiba dana am ma daal di xool photo bi ma ne ko diw sàcc bi dugg na sama néeg te mu ngi nii or yin ma dénk caaxaan bi maanaam euh, dàq bi su ko yóbboo coow topp ma diw xeetili ma mu ni foto ba ne ñoo nget ñëw ngàdduwaa ji delluwaat fam nekkoon ma yuuxu daal ni ko yuub sàccoo diw dàq na la mbokk yi lii ay taaxuraan la wallahi rabbil alamin du dëgg loolu amul de loolu amul de billahi alladi la ilaha illa hu walladi mu muhammadan bilxaqi loolu du dëgg loolu amul de amul de nit ñi ci boppam danoo aajowoo ñu di leen wax li leen seen borom wax bu fi kenn nekk li waxi maamam wala waxi baayam ku ne am nga maam ku ne sa maam am na jarola yu mu waaye waaye jalooray maam yaa bàyyee loolu yittee du nu jalooray yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yittiwu ak la nga xam ne loolu sunu borom wàcc ci moom loolay caaxaan la bu nu demee ba ay nit di am waa taxane ci ab photo diw de moo wax ni moom bu dul woon ak rus xawma lan ku ko woo ci photo mu wuyu la wallahi loolu ay caaxaan la Muhammad ibni Abdillah nga xam ne moom la yàlla yónni woon ci ñun dama ne bu amoon photo boo ko woowee wuyu innaka la tusmiu almawta wala tusmiu summa duaa ila ma yundaruun kii dund mooy dégg waaye ki faatu dootul dégg ci bay wuyu kooku am na lu ko doy alaxira barsax nga xam ne moom la mag ñi tuddee bersam sax ku fa dem ak sa sàqam bopp loo dugalul ci sàq ma doo ko di fekk kenn ku ci nekk am nga lu la doy foofu loolu ay caaxaan la da ngay dégg ci ay mu'taqadaat ñuy jàpp diw sàngam boo aw turam juróom-ñaari yoon xaw ma lan xaw ma nu yàlla nga ko gën a fàtte sax bañ koo xam da lay xam nga ni kooka du xittili ndax la lay wan du xittili mooy loola jël nañ ko taf ko ci oto oto bu génn fii accidenté ba xala ko ci tali bi bu fekkoon day xëcc njariñ wala lor dana ko fegal kooku kon moo tax daal yi nit ñiy ci boppam dana war a xam ni lii ay caaxaan la ay naxasa kandang la loolu wérut am na ay nit yoo xam ne jàpp nañ ni diw day bàyyi ko ca bàmmeel ba ñëw régler li muy régler delluwaat déedéet allahu akbar muhammad ibni abdillah faat tëdd ci rawdum boobu fa mu tëdd Fatima doomam ji nga xam ni jege na ko lool ba mu ni su ku ko mettital maa yéeg mettit wa jàppanteeg Aboubacar ci wuutee gisin ba coow juddu ca ba juróom-benni weer ñagar ñagar dox seen diggante ah dama ni bu amoon ku dee di génn yi ay problème Muhammad dana génn kat saxaaba yi am ay jafe-jafe seen diggante jaytu Usaama war a dem Aboubacar ñii ni day dem ñii du dem coow juddu ba ci diggante ay saxaabaam bu amoon kuy dekki rek lay problème mu dekkiwaat foofu kat ñu doxal tuuti saxaaba yi commencé am ñuy murtad di génn ci l'islam ndax nee nañ azaka duñ ko joxe te azaka ko joxewul génn gi ci l'islam ñu ne ndax yonent bi lan ko doon jox yàlla ni xud min amwalihim ba mir mi ngi dellu ci muhammad kon muhammad bu fi nekkutul duñ ko joxe ba xorubu ridda am ay saxaaba yu bari dee ca dama ne bu amoon kuy génn yi rek la muhammad génnaat rek la foofu saxaaba yi wuute ci seen diggante ay wuute yu métti yoo xam ni jur na ay jafe-jafe ay junni junni saxaaba faara Aïcha gisee na la jëm fële ànd ak ñam àndal Ali gisee na la jëm am ñu mu àndal ba ay junni junni jullit seeni deret faatu ci ndax wuute googu seytaane di leen foyee dama ne bu amoon kuy génn réglé defe naa tuurum deret moom a génn réglé koo gën a nekk fulla ak faayda kon amul kuy faatu yu génnaat déedéet kooku am na lu ko doy ki nga xam ne dafa nekk ku faatu kooku ay yaxam seey na ay yaxam seey na boo koy ñaan yaa ngi ñaan ay yax yoo xam ne yu fënax la idaman baaliyaat yax yu fënax yoo xam ne kooka bu amoon njariñ wala lor bu muy bët ba xëccal kenn boppam la koy xëccal déedéet alhamdulilah léegi sax nit ñi ngi yeewu tuuti da ngay gis koo xamee dañ koy nag ca caaxaan yooyu gis nga saabu fi tax fi tax njikoo rek def musiba bi dañuy léeb ni gis nga weñ googu ñu tëddee resol boo koy naj naj ko boo koy bàyyi bàyyi ko gis nga resol boo ko najee naj bis bu fettaxee sax si kim lay njëkk a tënk yaa njëkk loolu mooy nag mooy nit ñi ci boppam soo leen jëlee defoo leen jaami yàlla def leen say jaam di leen noggatu di leen gëmloo ni sama maam kese la du maami keneen sama bàyyi kese la diw moo yore njariñ yi diw moo nangam déedéet loolu sax nit ñi sam war nañ ah, waaw léegi waa kër ñoom diw ñoom jàpp nañ ni diw rek a yore njariñ ah waaw waa kër ñoom diw la ñoom xanaa war nañoo bañ loolu ndax ñoomi it jàpp nañ ni njariñ la foofa la nekk kon nit ñi ci boppam ñoo njëkk a weddente seen bopp te yëguñu ko moom la sunu borom di wax de fa anna tusxarun ñii bu ku leen jabar fan la leen jabar kon amul kenn koo xam ni mën naa xitili nga dégg ko nga xam day am am am doom docteur yi ni ko doom bi daal la ma ci biir ba mu ni maa ngi woo diw subhanallah xoolal foo xam ni yàlla rek rek wallahi yàlla rek lañ fa war a woo di nga ay diggante yoo xam ne boo weetee boo ko waxee ak boo ko xam nga ni fii yàlla lañ fi war a woo subhanahu ginnaaw fi yàlla jaar ak doom fi yàlla jaar liir ci biiru yaayam summa as-sabila yassara yoon wi doom jaar ba génn jàppandal ak yàlla rek fa am bi lu mu xarala xarala bu la pikiiree day ŋàbbal cigarette am taxaw fële aji tànkam ah, ndax docteur mag bi la ñuy xaar mu yàlla gis nga doom ji boo lee génn allahu akbar ci nga xam ne yàlla mooy kiimaan sages-femmes yi dañuy ñëw xool xool nga dégg ñu ni des na bu fekkoon ñoom ñooy génn doom bu ñu xaar des nañ ko génne waaye déedéet am na docteur bu mag boo xamante ni wara al aayun mi ngi ci ginnaaw ba ji kenn ko moom dañuy dañuy gars yi dañuy taxaw di ko xaar ñii ni mat wi des na taxaw di ko xaar xaar nañ laal xool fu mu toll taxaw di ko xaar mooy jékki-jékki ba yëg ni heure bi jot na ndax ku ne am na waxtu wa nga war a judd summa yoon la yoon wi nga jaar yassara moo tax summa amaatahu fa aqbara summa ida shaa anshara kon amul kenn koo xam ni dañuy làqatu ci moom di dimbandiku ci moom da ngay dégg diw boo tuddee turam nangami yoon diw boo ko tafee ci photo boo ko defee nangam nangam boo yooyu yëpp wallahi ay caaxaan la déedéet ay caaxaan la dama ni yonent bi sasam ay saxaabaam sax boo leen tuddoon du la jëriñ déedéet da ngay dugg ci oto yi da ngay gis ak ponkalum camion Aboubacar Omar waaye Aboubacar ak Omar ak Ousmane am nañ jot gu doy ni di wattu ay camion déedéet Omar ak Ousmane wallahi jombale nañ seen bopp di garder ay camion ñuy kee ma nga bind Aboubacar Omar Ousmane kee ma nga bind bismillahi rahmaani rahim kee ma nga bind fatilan jadilan kee ma nga bind badwa léeg-léeg yow nga jàng arab sax sax nag dañuy bind ba bind loo xamut na léegi da ngay gis nit bind loo xam ne wallahi ay ree da lay jàpp fatilan xoolal fatil fatil mooy lan fatil de mooy boo xaree tàndarma nga ubbi ko saal ba fa muy saxee am na mbuus gu weex gu fa lale muy ak rëdd mooy fatilan suñu borom nee na ñi ngeen di jaamu te duñu yàlla wala yuzlamuuna ah ñi nga xam ne ñoo ñëw àllaaxira doon jaamu lu dut yàlla la yuzlamuuna fatila kenn du leen tool lu toll ni fatil nga gis koo xam moom xetu miir lay bind nga dégg ñu ne xetu miir mooy mooy xaj ba àndoon ak ñoom ñoom ñoom subhanallah di wax ay wax yoo xam ne doo xam wax yi fan lañ ko jëlee gis nga kon yooyu ay mbir la yoo xam ne du mooy jëriñ waaye ki yore njëriñ ak lor kooku mooy yàlla a wax nit ñi nga xam ni yàlla dénk na leen xam te ñu mën a leeral lii leen war a wax nit ñi waaye waxi maam yi waxi baay yi ku ne am nga baay ku ne am nga maam ku ku ne sa maam lu ñàkk ñàkk ñàkk solo am na njëriñ ci kaw suuf am na lu mu def waaye yàlla Muhammad la yenni woon ci ñun pour ñu copier ko loolu nag tekkiwul ni mooy nit bu amee ay mbaax kenn du ko nangu déedéet ahankay am na ñu baax ñu ragal yàlla ñu ne fii am na ñu baax ñu ragal yàlla ñu jub ñu dëgg ñoo xam ni dañoo jeex takk ci bëgg yàlla ak topp yàlla axankay ah, ñi ngi fi waaw foo dem nag fekk ko fa waaye nag jàpp ni ñooñu ñooy xitileeg ñooy indi ay njariñ ñooy dàq ay lor déedéet loolu amut lool ku la wax daf lay nax borom bi subhanahu mi ngi wax di nettali ci suratu shuara keroog yowmal qiyaama gaa yi nga xam dañoo jàppoon ay nit def leen yàlla sunu borom mu ni fa kubkibuhum fiha wal gaawun wa junuudu iblisa ajmaun yàlla mu ne këpptal nañ leen ñoom ñëpp tëmbal leen ci biir sawara ak mboolem ñi nekkoon njabootu iblis après sunu borom ni qaalu wa hum fiha yaxtasimuun ña nga yuuxu ak a coow ci biir sawara sax ña nga naan tallaahi gin nañ ci yàlla in kunna ñun de dañoo nekkoon fii dalalin mubin ci cànkute gu rëy nga ni waaw lu leen teg cànkute gi ñu ne isnu sawwiikum bi rabbil alamin jamono bañ doon jël ay nit ak i di leen tollaleeg yàlla di jàpp ni li yàlla man man nañ ko ah mooy nañ wa ma adallana illa al mujrimun gis nga ñi leen doon yóbbu ca loola ay bandi lañ leen tuddee keroog tey boo leen tuddee ay bandi coow jub defe nga di naka la ak nit mën a taxawee xool ni man ku ma xool dugg àjjana ku ko xool dugg àjjana wallahi subhanahu ma hada illa al karim lii mooy kàcc lii mooy kàcc kenn ku nuy xool pour mën a dugg àjjana loolu yàlla tànn ko déedéet xatta Muhammad du Muhammad xool pour dugg àjjana déedéet amut ku ma xool dugg àjjana ko ko xool dugg àjjana ko kon kay jëratul ñuy jaam yàlla ñooy julleeti looy woorati ndax kilifa yu baax yi ñuy wax ni ñoom la ñooy ñu baax ñi fi nekkoon ndax am na ci kenn kuñ mës a dégg muy woote woonaa ku ma xool dugg àjjana ndax am nañ ci kenn koo xam ni dafay digal ña ko topp naan leen bu leen jaamu yàlla bu ngeen demee maa leen maa leen loolu de ku ko waxagul amut déedéet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxuloon ay saxaabaam de Muhammad ak daraja ju kawe ji mu amoon jaamu leen yàlla la leen sant su ngeen dee ba laaxira nag bu ramm di am doog a ramm ku de yërëm da ngay yërëm tëlu ah ku ñuy lugat da ngay am pour mën a jàpp ci yow su fekkente ni da ngaa ku ba amoo lenn lu la yàlla mën a xitilee wallahi fa ma tanfaahukum shafaatu shafiin àllaaxira yàlla mu ne kenn du la mën a ramm ndax fu ñu mën a jàpp ci yow du am sa léppay la tax fu waay jàpp day wat ndax amoo leen lu baax kon borom bi subhanahu wa taala mu ni fa maa lana min shafiin tey day ñoom amuñu kenn ku leen di ramm wala sadiqin xamim amuñ tamit ab xarit boo xamante ni moo leen di jege wala di leen dimbali kon mbokk yi ñu xam ni li day mooy waxi sunu borom moo tax sunu borom mu ni fa law anna lana karratan fa nakunu min al muminin nga naan cay bu ñu yàlla delluwaatul ci àddina lu dinañ bokk ci ñu gëm waaye boobaa way way weet na mbuus moo tax sunu borom mu ni inna fi dalika la aaya ak waar a xuppe mi ngi ci lii ah wa ma kaana aktharuhum muminin waaye li ëpp ci nit ñi ñoom duñu gëm mbokk yi ci yàlla kenn ku nekk nan yàlla rek tax ban moo am ci diggante bokkaale ga abu jahlin doon def ak abu lahab ba yàlla ŋàññi leen ci alquran ak nit ki nga xam ne tey dafay ñëw ba ci ab armeel mu koy raay ngir jàpp ni raay googa moo koy xitili <laughs> am na mbokk mu a nettali nee na ma am na armeel yoo xam ne sax ñoo yoree dépense defe naa loolu am na ay armeel yoo xam ne am nañ dépense yu ñu yore ndax nit ñi liñ fay tàbbal ci xaalis ni mu bare ay armeel yoo xam ne nit ñi dañ leen di tawaaf comme ni ñuy tawaafee kaaba gi ay armeel yoo xam ne wallahi da gis nit jóge fii am soxla war koo ñaan yàlla xoolal rek dem ci jàkka ji lu ñaar rakk doo fourni benn énergie waaye ki day jóge fii dem ba foofa sukk ca armeel ba nekk xaasaan lillah la li bari waa joo xam ni boo ko wàqi woon ay jaar ak i janax ak yi kaña ak i ndaw ñoo fa dugg lekk aw yaramam de ak ku mën a doon noonu lay demee de ak ku mën a doon laa wax nag dama ne yàpp yi bu ñu xësee dugg ci gis nga yàlla ni muy séddalee wërsëg lu maandu la kii daa xëy jaay soble kii jaay pombiteer kii jaay butéel kii jaay lee kee roose ji kii garde kii def lee kee sax yi ñoom di xaar niiw yi sax yi ñoom néew la ñuy dundee saa boo xëyee yow yaa ngi am ab néew nga am lu la metti yow yaa am lu la metti ndax àddina noonu la wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas am lu leen neex moo tax yàpp yu doomu aadama yi duufala ka megg-megg màgg-màgg la ka xeesa la ka punkaleen loola daanaka sax yi nga koy defar rek añak sax yi ngay gën a duufal waaye doomu aadama bu faatu bu ne bu duggee ci suuf damay ne sax yi lekk ko kon ko nga xam ne amaan na boo demee yaxee seena yàgg na kooku kenn du ko ñaan ak lu mu baax baax ak lu mu ragal ragal yàlla kooku daa aajoo ñu ñaanal ko ah moo tax nit ñi dañuy wax ba pare weer waat da ngay dégg ñu wax la ñu wax yépp ba nga jàpp ni kii mooy yàlla ñu ne bu leen fàtte ñaanal diw ah kon kay war nga mën a fàtte yow ngoo xam ne ku la woo ko foto nga xaw ma yaa ko xaw woo ndaw dégg na nit ñi di ko wax yow koo xam ne daanaka say maqaama yegg na fu kawe koo xam ne yow na taali bi sax mën nga leen dugal àjjana kay wax dëgg yàlla lu ñu koy ñaanalati nan ko bàyyi kay ñaanal ña aajoo ñaan moom ko kon gis nga nit ñi dañuy wax li ñuy tuddee tanaqud ci làkku arab mooy bi ngay tàmbali wax waaye bala ngaa jeexal weddi nga sa bopp te yëgoo ko kon mbokk yi caaxaan yi dafa bari lool nit ñi dañuy leen delloo ci leen yàlla tënk subhanahu wa mooy lan ko jaamu moom kott jox ko cërëb jaamu kon mbokk yi bokk na ci musiba yi mooy doomu aadama jàpp ni ak wér mi ngi bàyyi ko te seytaan da ci participé nag da ngay ñëw nga ñaan yàlla sama feebar bi sama nangam sama nangam wax ba yeggal ndeysaan nga ñibbi daal di wér xoolal nit ñi ni ñu leen di naxee léegi ci suba léegi léegi ci suba bi ma bindee xutba ji ba noppi damaa génn ma ni xaaral ma doxal pour wan la nit ñi fi ñu toll ma génn ba tolloo a ji fii taseeg benn waaj waa maa ngi ko dégg mu jàpp mu ñëw ba jëman de man la doon waxal de maa ngi sol mbubb mu oyof mu ñëw ni ma ku soxla xaw ma kuy kuy seetlu kuy mocc lu muurlu kuy nangam nangam ku soxla ku ko pettaawal waxa waxa waxa wax ko dara dama kaa xool xool xalaat a wax rek xaw ma ko ma ko jàll dem nga xam nit ñi léegi dañ ko def ay métier bay wër di ci propagande nit ñi seet man seet yow boo amoon looy seet doo ko seetal sa bopp est que da nga ma koy defal ngir ngir ma doon sama poos jox la boo amoon looy seet kay sa bopp boo amoon looy jariñee jariñal sa bopp ba noppi kon yëpp ay caaxaan la waaye kon doomu aadama yi ci boppam jaamu yàlla gi jaamul yàlla saa buñ ci raxee kenn ku yàlla bokkaale mi lu ki mel ni reen bi te yàlla taxut da ngay gis ndeysaan ku reyum xar wala bëy wala ginaar gu wala nangam pour wan la nit ñi fi ñu moo tax ndax daan ko euh, bi moo ko digal na nga rey nangam nangam wallahi loolu shirk la loolu daganul ab jullit di ko lekk lox ak dabxu la li gayrillahi subhanahu kooku kuñ ko sarax waroo koo jël kooku boo ko lekkee lekk nga lu bon lu yéeg fekk tan mu dee mu dee wallahi nga lekk ko te muy lu métti métti lu xaram moo gënal yàlla nga lekk loolu ginaar gu weex ginaar gu ñuul maa baalu ginaar gu weex ak gu ñuul fii xadaaya xawaayij ginaar bu mënoon dara bu doon faj aajo defe nga ne dana xoole ba ñuy suqi dungam di ko damm ay laaf di damm ay laafam ah di feeñu dara fas wi nga xam ne da nga kaa jël xaw ma yàq googu ñun bi ñu nekkee ca kaw ga yàq gi ñuy takkal fas wi ci baat xam nga ni yàq ga bu doon faj dara fas wam génnee ca moom la koy fajal ba du génn ca moom li nga takk yow bu fekkoon am nañ ñi benn njariñ bu mu lay defal te subhaanallah da nga gis doomu aadama yi dañuy goo xam ne tasir tey bu ma fàtte woon sama li ma doon takk sax damay tourné waat ndeysaan ma jël taxi ñaari yoon ci loo xam ne laa yadur wala yanfa ko ñi ñi koy def moom duñu duñu accidenté xanaa boog ci li ma yaakaar ñi jàpp ni loola yandi ah ñooñu de accident travail du leen dal ñooñu de xanaa oto bu këppee ñooy mucc ñoo leen xanaa seen kër du taaj ñooñu xanaa waruñu leen dàq fa ñuy liggéeyee mbokk yi nit ñi ci boppam bu ñu xalaat yi xalaatee danañ xam ne yenn yi ay caaxaan la di giñ ci kudut yàlla xam ngeen luy giñ giñ lii may wax lii may wax dafa am ku am màggaay goo xam ni màggaayam daa tolloo kuy dogal nga xam ni su ma tuddee turam day wane ni kon mbir mi kat lu wér la loolu yàlla rek lañ ko war a defal subhanallah da ngay dégg ku ne la te nag nit ñi dañ koy bàkkoo da ngay dégg ku ne diw diw kay bu la gëñalee ci sëriñ na dëgg ça veut dire que day fen gis nga de xoolal yàqu tege fi mu yegg giñ naa ko ci diw dama ni ka nga wax na doon kum neex la wax na neex sax Muhammad gis nga ko yonent yàlla bi saa sallam da doon bañ lu mel noonu da doon wax bu leen ma jayee comme ni nasaraay doon ka jayee Isa ni Maryam man jaamab yàlla laa yàlla laa bu soobee yàlla ak yonent bi allahu akbar loolu sax baaxul kon man waxuma bu soobee yàlla ak diw maa baalu diw min al machia suba moom xamul dana ko fekkee mbir moom ab dogal lu mu ci bu soobee yàlla ak diw de suba dinaa def nangam inna lillahi wa inna wallahi loolu shirk la bokkaale yàlla la waxuma diw sax na nekk Muhammad bu soobee yàlla ak yonent bi laa wax kenn ko wax bu soobee yàlla rek loolu yëpp di waxoon maata allahu waxda bu rek ba nga ne bu soobee yàlla ak yow de bu subaa dinaa tukki mu ne ko a ajaaltani lillahi nidda ndax danga ma bëgg a def moroomu yàlla ci bu soobee yàlla nga parce que ak machia moroomanteeg yàlla da ci mu ne ko bu soobee yàlla kot kon booy giñ Omar ni man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw liyasmut dama ni ku mën a doon laa wax waxuma ay diw ak diw waxuma num sant yooyu intéressé wu xam nga loo intéressé mooy Muhammad laa sallallahu alayhi wa sallam su fekkee da ngaa giñ ci moom wallahi bokkaale nga yàlla ñu xam ni mbiri yi Muhammad ak Masamba ak Baye Baate Baye Moodo Baye Ablaye ñoom ñëpp a ci bokk mbir mi kenn lañ war a giñ mooy yàlla moom lañ war a yaakaar moom lañ war a wéeru léegi nag yaakaar li nit ñi tey man mii soo yaakaaree ne man maa la tane ci dépense nga ñëw tàkk ko ci man loo déedéet loo bu yaakaar dugg ci foofu yaakaar gi ñuy wax mooy mbir moo xam ni yàlla moo ko man subhanahu wa taala wala def defu bi yàlla la nga ni diw de yow laa ci yaakaar da ngay gis ko indi jarag ji mu ni ay waay bàyyi diw dimbali ma waaye te maa defal sax nga daan yow de jarag ji yow dong laa ci yaakaar allahu akbar te fekk ibrahima la moo xam wa ida maridtu s ma feebaree fa huwa yashfini ki may faj kenn la muy yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi sunu borom mu inna alladina tad'una min duni llah ibadun amsalukum ñi ngeen di woo di leen jaamu te duñ yàlla ay jaam lañ comme yéen fad'uuhum woo leen fal yastajibu lakum nañ wuyu in kuntum sadiqin bu dee wax nañ dëgg kenn du la wuyu innaka la tusmiu almawta wala tusmiu summa addua ida ma yundaruun kon mbokk yi lan ban gravité moo ne ci bokkaale yàlla ba tax njaalookat bi ñëw bu soobee sunu borom mu ni baal naa sàcc bi ñëw bu soobee suñu borom mu ni baal na ko jigéen ji doon jaari ak li muy def li muy bon bon bon suñu borom ba ko soobee mu ni baal naa ko yàlla ñëw suñu borom mu ni soob ak ñàkk soob ak yem moom baalu ma ko yi lan moo ne ci bokkaale ba suñu borom du ko baale xoolal tey yi yow sàcc fen wax da ngay a kaw suuf te mi ngi bokkaale yàlla moom deuxième position la bañ waaye première position la waroon njëkk a bañ mooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala bañ a bokkaale yàlla subhanahu wa taala fexeel ba sa xol bi bul jël lenn luy bi yàlla jox ko ku doon léegi nag soo paree am ku ñu tuddee sab sëriñ mu dina jàngal diine di la xëttili di la loolu yoon kenn néew ci am nga ca droit bu fekkee yem nga fan war a ko mu lay jàngal di la xamal di la gindi te wallahi nit ñi nit ñi war na noo muus de xoolal média yi xoolal télé yi xoolal rajo yi xoolal anniversaire yi am par at ban nga ci mës a déglu ba mu yegg nga dégg ñu jàngale njàpp ban nga ci mës a déglu nga dégg ñuy jàngale julli ban nga ci mës a déglu nga dégg ñuy waaraate delloo nit ñi ci nan jaamu yàlla bala àllaaxira ñëw déedéet sama baay sama maam ba mu ba mu ba mu dajeeg moom moom maam diw ba mu dajeeg waaye ku nekk sama am na kum dajeel bi muy dund da nga kaa rek noppi ku ne sama am na kum dajeel bi muy dund def fay jaloore da nga kaa noppi waare parce que loolu amul sens. kon yooyu doomu aadama du moom la ñuy bàkkoo ah li nit ki jar a bàkkoo suñu borom tilka ummatun qad xalat xool alxuraan mbokk yi faaw ñuy jàng alxuraan xëy na amaana doomu aadama dana dégg lii jàpp ne lii waxi waxi ki taxaw di wax la déedéet waxi suñu borom la tilka ñooñu ummatun qad xalat askan la woo xam ne ni way nañ laha ma kasabat yóbbu nañ lañ doon jëf walakum ma kasabtum yéen it yéen a ngi deseeg li ngeen di jëf wala tusaluna kenn du leen laaj àllaaxira amma kaanu yaamal lu sama am doon def déedéet fa ida nufixa fi suur alaxira fala ansaab baynahum askan amul wala yatasaaluun kenn du la laaj kuy sa maam wala yatasaaluun kenn du la laaj askan wa bokk lu ñuy laaj fa man saqulat mawaasiinu ku sa palaatu tiyaaba fees jël sa ëmb ak tiyaaba fees fa ulaayika hum muflixuun texe nga wa man xaffat mawaasiinu ku sa ëmb ak tiyaaba oyof dama ne kuy sa maam ak noo mën a sant fa ulaayika alladina xasiru anfusahum fi jahannama xaaliduun lii daal alquran wax léegi ñaaree maanaam nga ni wet na alquran bu la neexee nag la neex nga def waaye lii mooy waxi borom bi subhanahu wa taala kon mbokk yi yàlla mu ne inna allaha la yaxfiru yushraka bi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha yàlla dana jéggale lu ko soob lu dul bokkaale waaye bokkaale du ko jéggale kon jàpp ni maam diw mii am na ay lor yu mu mën a loraate yoo xam ni moom moo koy lor déedéet wàkkilul ci yàlla dama ne lor ak njariñ du bàyyi ko ci doom aadama ci yàlla lay bàyyi ko yàlla la lañu war a ragal xettaliku ci yàlla lañ koy war a def gën ci yàlla lañ koy def muslu ci yàlla lañ koy def dama ne xeet yi nga xam ne doomu aadama yi dañ koy def muy xeeti bokkaat yi ko xettalikoo yooyu amul benn sens amul benn njariñ defe nga ni jël ab béjjën xetti ko ca biir xaw ma loo ca dugal wékk ko béjjën defe nga ni bu amoon lenn luy jariñ du jariñ kuy moom saxoon ay béjjënam ba kenn du ko rek ni ci tabaski ba ah moo tax benn benn borom xam-xam ci rajo ko déglu misaal mu am solo lay nettali mu ne benn waaye dafa dafa dafa yéegoon ci moto ñu ñu toog supporté ko muy daw di daw di daw yàgg moto bi daanu mu ne waaye nag yàlla def na mucc na ci accident ba lam takkoon rek moo ko jam ci biir bi wallahi misaal mu am solo keroog ba ko déggee damaa kontaan ma ne xoolal rek lim lay woon mooy yow kii moom xitili accident bi ñëw moom xitili wala lu dul moom mu dina jam law kaana yamliku durra wa nafa la nafaaka fi dalka yow bu doon njariñ ak lor ma nga ca moom keroog dana waaye déedéet kon nit ki dafay jël li yonente bi jàngale sallallahu alayhi wa yi ngay daj ci bàyyi diw mu fasal la li fasal la fasal la jox a nga takk attéeré ah, jërul sax fay cent franc wallahi rabbil izzati wal jabarut yént yàlla bi jàngale na ay jan yoo xam ni saa boo ko ñaanele xatta xale bi naam sax yàlla aaree ko uiduka bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahama wa min kulli aynin laama léeg-léeg nga gis xale boo xam ne lañ ko takkal boo ko peesee mat na kooku nu muy amee yaram moo tax en général boo fekk xale bi day xiiboon parce que li mu yenu rek moo koy njëkk xiiboon moom déedéet ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala as allah al azim rabbal arshi al azim an yashfiak yéen yàlla bi nee na saa boo seetee ko feebar te ak deem tombewul ak jamono jooja boo ko ñaanalee yàlla mu jug dem bàyyi diw nee na moom moom mooy fecc xala yi buñ takkee xala bàyyi diw ay fecc xala déedéet takk xala du métier feccim xala tamit du métier ñëpp war a jàngi waaye taa boo xam ni fitna yu mel noonu am na njabar am na wallahi bi iznillah sunu dana ko dindi ci loo xam ni yow doo ji fay dara amul benn fay parce que loolu yàlla defukoon pour ñuy fayee waaye daf koo defoon pour ñu jariñoo ko beneen bi ci mooy mbokk yi ñu xam ni maanaam doomu aadama yi seen muqaddasaat yi armeel yi nit ki léegi nag nit ñi sax dem nañ ko commencé leeral yu bari yoo xam ni ma ko ni ma koy waxee da bu njëkkoon yu bari yu ñu daan gëm léegi gëmantuñ ko koo xam ni muqaddas lañ ko defoon ab nit koo xam ne du juum du du feebar moo tax it sëñ bi lay sangu sax doo ko doo dee gaay nañ koo war sëñ bi lay waaw yéen sax doon sangu bañ koy muural sax moom ñu naan nangu ne day sangu waaye sëñ bi lay ko waxee sax wax nga musiba sëñ bi du bokk ak nit ñi añ jumaa du ko faj li ma wax nit ñi xam nañ ko li may wax dooy inventé de wallahi da ngay gis ñoo xam ne julli ci jàkk ji lu tax ndax ah yow yow nit ñi ak ñun la yaakaar ak ñun la fonkee nga sëgër sëgër ma di la ko nga rëbb sa jëbi ni jàpp ci suuf ma rëbb sama jëbi ni jàpp ci suuf nga geleñ say tànk ma geleñ samay tànk nga ni salaamaaleykum buusu ma ko ma ne salaamaaleykum buusu la ko ah bu yàggee dama lay miin kat seytaane mu ne ah kon toogal ci biir kër jarul ngay yéen yàlla bi nee na képp koo xam ni dégg na woote bi amul benn ngànt mu toog këram julli kooku amul julli aj màkka ah mu ni man day wax dëgg yàlla dem ba màkka sa waay génne sa mbagg mi fii di cukki-cukki mel ni koy entraînement loolu du ma ci fekk mosoon naa leen fee nit li sama mbokk ma pour wan la nit ñi léegi ñu ngi yeewu waaye dina ne ko boqal ma sama dàll yi ma ne ko awee sëñ bi fii màkkaakat fii ku nekk yaay boqal sa bopp ba ñu yegg Sénégal wax na dëgg de ku ne yaay boqal sa ba ñu yegg kon gis nga léegi doomu aadama yi bi ñu ba ñooñee nga xam dañu leen ko xamee jaamu yàlla ragal yàlla góor-góor ñu dem ba dugg ci politique nañ leen jàppale diw kaay leen nangam nangam suñu borom daal leen commencé toroxal nit ñi kenn respecté tu leen que nitub diina daa war a yem ca a yem bu lu ñor lu jar wax wax nga wax waaye yemal fa nga war li may jeexale mooy xista boo xam da lay wan nit ñi li ñuy gëm-gëm yi ak musiba yi ci nekk waxtu yi ci jamono ida jaa nasrullahi bi mu wàccee gars yi dañu ñëw tuub dugg ci lislaam biñ tuubee yonent bi ni leen dem leen ñib ñu ne ko waaw riba mu yonent bi ni baaxu sàngara yonent bi ni baaxu nangam yonent bi ni baaxu ñu ne ko waaw yonent bi moom suñu yàlla dañuy tuddee rabba moom noo koy def fekk dañoo ngandem xiram moo xam ni moo raw ab monument bu fonkal tuddee ko rabba di ko jaam dañ cee amoon ay gëm-gëm yoo xam ne laal dee la tudd Sénégal na tool yoo xam bay dee garab goo xam ne yéeg dee gor dee déedéet wallahi boo wàcciloo ci yàlla nga yéeg sa gor laa yusibuka illa al-aafiya yawma idin jàmm rek nga yem boo wàccee am nañu essayé loolu xam nañ ci dara yénte yàlla ñu ne ko waaw rabba nu mu koy def mu ni xanaa maat ñu ne tuugi ruugi yénte yàlla bi maat rabba de boo ko maatee waa dëkk <laughs> leen ñoo ñi gaa yi ni ko kon kay xanaa yow nga tojal ko sa bopp yonente bi waa dem leen dinaa la ko ko yet yonente bi yebal a ibn Walid ak Mughira ibn ay saxaaba gaa yi dañoo yegg ci dëkk bi rek waa dëkk bi yëpp génn daw tiim xërëm bi wala xàmb bi ndax nee nañ laal nga rek mooy dee Mughira ibn Shu'ba daal ni gaa yi ngeen maa dimbalee leen ñu ni ko lan mu ni may leen ma rek ba reetaan loo leen léegi Mughira ni may leen ma reetaan loo leen ñu ni ko bismillah mu xiir a jël sémmiñ bi daal di ñëw ba jub xërëm bi ñuy wax rab rek nit ku yëpp bi mu ko dooree ak ni mu jaaxaanee di say saylu benn na mu jaaxaan di say saylu di wiccax ay tànk ka yuuxu di yuuxu wooy wooy wooy nit ñi daal liñ doon wax léegi nii newoon nañ leen rab ba laal mooy dee gaa yi wal ba ci suñu xaalis du gis bismillah dem leen yéen ngeen laal bu ko defee ngeen dee comme ni waa ji dee léegi mu réere de kat di kat di rek di kat di kat rek moo ko nay de muy kat di rek di kat di kat coow li di kur mu réere jóg mu ne lu ngeen foog da ngeen foog ne rabba ma la ko dama leen doon wan ni lii ay mu'taqadaat la yoo xam nit ñaa ngi ko gëm dama ne rabba mii tey ma tos kareel ko daa dee rek cor bopp bi ñu patar pataree ko ay tojit bam ni morso waa dëkk ba ci lañ doog a gëm ni ndekete fanam bii taxaw yorut njariñ yorut lor kooku ab xërëm la ab nit la ab xàmb la bu nekkoon fii nga nekk mu'min raasixul aqida ku wér pas-pas ragal yàlla dama ne nga ferenkulaay bi nga jàng suuratul baqara da ko futti da nga dem tëddi te jàmm rek lay dal dara du la dal billahi allazi la ilaha illa hu dara du la dal dara du la dal musulaa yent bi jox boo ko defee dama ni la ku la woo mën nga gutti xàmb ba sànni bu la neexee sax nga gaanawaay du la du la lor kan lay lor yow mi nga xam protégé woo amoo ay njariñ yoo xam mu ko ci yent bi kon mbokk yi nañ delluwaat ci yàlla dëgg-dëgg dellu aljana day borom bi da koo waajal ña nga xam ne ñooy ñi am pas-pas bu set yal na yàlla boole ñu ci ñun ñëpp sunu yaram yii day mënta dékku tàngooru métti waxuma laa muy dékku sawar yal na yàlla musal nu ci nu ngi ñaan yàlla yàlla gindi sunuy xol ba ñu jëm ci mbaa fuñ mën di jëm ba keroog ñu koy faatuwaale rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatika wa azabi maghfiratik والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار wa salli allahuma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain